ñu tëj sa njaboot xam nga ni dañ laa génne xam nga ni dinañ la waaye ay xale démb ñu yëngatu ñu leen di dóori bal ku jur doom ku jur yërëm ku jënd sa kanal te moomu àll nag sama way jur nee na du tax fu la neex nga fàkk ne naa fa jonkal du doonu de du noonu nañu fekk réew mi réew mi dañ ko fekkoon mu nekk réewum Sénégal réewum teranga waaye léegi réewum torox tànge la tudd man de tuddeetuma ko télé torox tànge laa ko tuddee dootul réewu teraanga xàmmeetuma sama réew kilifa diine yi wax leen wax leen diine yi wax balaa Sénégal a tàkk ay waay wax leen wax